ñu ni yow Sénégalais nga am carte d'identité nationale. Mm. boo xam ne dañuy carte d'identité sénégalais kon yaakaar naa amatoo frontière ci réew man sama gis-gis nag laa wax comme man fi mu ne am naa amatoo frontière ça veut dire que mooy pas coow wala leneen mais am nga droit dem fu la neex ci sama xalaat bu gàtt rek man jàpp naa ne nag nit kuy jug di dem fu ko soob wala di dem di doxi soxlaam moom ah. nga ni ko fii ngay yem man man mii rek bu ma ko waxoon boo moytuwul coow dina ci xaw ndax xam naa ni la may dig di dox jàmm la ak salaam kon nag jàmm ak salaam kenn du ah. hmm. ñu demee ba tënku ci ne campagne lépp lu jëm ci propagande lu jëm ci politique dafa am limite dafa war a am campagne dafa war a am ñu may la autorisation nga def ko muy def na même tour ci moment boo xam ne tamit xëy na dara xewul ndax jàpp ngeen loolu jaar na la ci réew mi mel ni Sénégal bu fekkee campagne nga xam nga dama déglu benn discours defe naa su ma jóowul mu ngi naan dafay dem di seeti mm. ñi ci bi ci naa loolu campagne yaakaar na xam nga man ki toog woote ni kaay leen fekk ma bërëb sàngam damay wax ci nangam kooku ma woote waaye kii am yéene ni nag damay dem bërëb sàngam xam nga congar mm. ku ci nekk cër bi ko yàlla nangoo day boobu ko nangu leen dafay daal congar am na ñoo xam tey bu ñu yoroon seen oto ibbi seen musique yokk ko ba mu sës di woote kenn leen toog ak ñoo xam ne tey tey tey tey bu ñu demoon nii nii nii sol sax jàllaabe di masque kenn nit a koy gis foofu fees del parce que cër na bu yàlla di def ci nit tey boo bëggee nag yow suñu borom la ci biir cër boobu da ngay nangul nit ki cër ñàkk na cër fekk ñàkk nangu ki yàlla defal cër moo xëy ndax koo dul gis du joxe cër rek amul cër ci boppam te ku bëgg cër ci boppam dina jox nit cër am na loo xam ne mbiru suñu borom la te yàllaay seet nag ku ko neex ak ku ko soob def ko saa su ko neex ndax jàppoon ni tamit dañ jàpp ne rek am na lu mën a gàttal tuuti booy xëy na mobilisation yi am ak yooyu noonu retourné bi aussi euh, ci côté sécurité nationale ñoom it ñu jàpp ni menace la moo waral xëy na ñu jàpp ni Ousmane Sonko jamono yi tànk yi ñu def aussi xaw na xaw na am ci lu ci. menace menace comme. xëy na ñoom la ñu jàpp xëy na. maanaam maanaam ci li muy def menace. ci li muy def waaw. ah waaw xam nga ne man politique fooruma ci trop. mais comme en tant que dama wax ak yow en tant que jullit ak jullit en tant que sénégalais ak morom. xam nga bu ñu génnee man nag am na ci wax yoo xam ne des fois damay wax ni dañuy tooñ sax am na nit ki lu muy def loo xam ne man lu ma dàkkoolu nag ugguma it lu xew rek ñu ne diwoo diwoo diwoo diwoo ndax tey am na ci loo xam ne kenn amul jotam mm-hmm. xanaa ñun ñi rek am yu bari yoo xam ne da sëñ bi man bëri na yoom dañ la ci kii fekk wallaay yow yëglooti loo léegi en de la am na ci loo xam ne yaakaar naa du doon kii yam waaye ñi ko xam ne doon ñoo ko wër ñoom it ñu bëgg jàmm rek ci réew mi sëñ ji nga réew mi leneen lu fi ñaan waaye ñaan lu dul jàmm yaa ngi ci musiba ndax suñu njaboot fi lañ nekk ba nag lépp loo xam ne luy indi jàmm la ci réew mi mu wóor ñu ni mën nañ ci wax ñor suñu borom ñaan ci suñu borom bi dañ koy def alors ñenn ñi jàpp ni jamono ji ñu ngi xalaat ni justice war na ko woolu war na ko déglu procureur sàpp na mu ñëw ngir mu déglu ko bu lancé lu mel ni lii tamit xëy na na woon rek la bëgg a defaat ah loolu nag loolu ba tey mais xam nga. Hmm. man damay wax ma juumul taxaw lu ñu naka procureur woo bindoon na suma su ma juumul. ah oo kuy bañ ku la woo kay xanaa loolu woo leen ma nest hmm. maanaam mooy toujours ñëw na ci cër bi may wax rek. xam nga tey convoqué koo xam ni wóor na la kii tey buy dem même boo woote woon nit ñi duñ ko fa jiitu. woo koo xam ne nag wóor na la ni même boo boo ko woon ba mu dugg ba pare nit ñi xam ne ñoo nga fa mu fees del toujours day ñëwaat ci cëru bi ma la wax sunu borom yàlla mooy joxe cër mooy jox ku ko soob waaye seen dossier bii moom sëñ war naa jeex Sénégal yi nekk ci jàmm ak salaam wax dëgg yàlla parce que bu politicien moom deux mille vingt et un ba deux bi nga koy mm. mm. sa ñu bari jàpp ni dossier bi dossier Monace la moo tax xëy na yéexantal bi ci am aussi am ci ci li nga nekk di ci yëngu ndax jàpp nga ni aussi comme ni ko ñu bari ci observateur yi di waxee dossier mystique la gëm nga loolu ku la wax amul mystique lay nag xam nga lu tax hmm. ñaati junni nit a ci biti di ñaanal camp bi wala di ñaanal camp bi da koy parce que bëgg-bëgg la tey da xool ni am na ci tey ñoo xam ne wóor na la di tey ñu ngi ci àll boo xam ne kenn xamul leen hmm. te tey kenn ki la ba bëgg ci seen xool ba mara day taal kooku tey lu ko dal moom mara day taal duñ ko xool hmm. luñ ci man yi dañ koy def te dossier mystique man tawee suñu fi xew 2021 de foo gis deret rek am na lu luus bu la ci kenn nax sëñ gis nga dossier bu laal lu ñuul. Mm-hmm. xam nga lu ngay tenir deret rek nga koy xam boo duggaatal ci xam-xam bu ñuul foo ko génnee rek indi nga deret ndax doo liggéey ci lu dul loolu lu jëm ci loolu. waaye nag kon kon foo gis ni deret di fa laxasu rek. am na loo xew ci dossier bu jaram moytu la ak dossier bu jar a mm. euh, lenn luy actualité mbirum Bambaly Seck benn xale bu jigéen bu génn dem ci média yi daal dafa amoon moom doom joo xam ni euh, pareegul pour nangu ko en tant que kilifa diine. Euh, ba pare li ñu ko accusé déjà accusation yi naka nga ko jàngate waaw man de damay wax di rek saan man yër du bàmbaale du soxna si doom ji laa yëg ndax dafay manqué te lii daf fiy des soxna si su ma ko doon conseillé xam nga ma ko doon conseillé mm. bu mu defoon lii dafa waroon na dem ci suuf gis ñoom ñuy gis wala dem fa mu war a dem te kenn du koy mu suturaal doomu. si suuf presque waaw parce que fa nga jaar xam nga tey ñëpp bokku ñëpp. am na ñoo xam ne bu fa demoon heure bi dox nañ ko ba mu sotti te kenn nga xam ne tey danoo si bopp ñëpp xam ne kii doomu nangam la. xale boobu bu juddoo vidéo yi dañ fii a waxante moroom yaa ngi koy xalaat. Hmm. ba mbali kenn du sànni sa direct bu dee moo def. direct dafa fort te kenn xamul lu muy doon. Hmm. te li Sidi doom joo xam ni bu muy jógee ci yàlla la jógee moom amu ci pexe dégg mm-hmm. doom ju jógee ci yàlla ku kon bu la wóoree sa doom la xëccal taf sa wet mën naa lii laa war ma ko ciy conseillé. d'accord alors ban analyse nga am ci kàddu yi nga xam ne ni xale bu jigéen bi jot na ko yëkkati en tant que kilifa diine xam leen ni vraiment victime la euh, xëy na mi ngi doon seq bàmbaane loo xam ne sax xëy na waruñu ko woon a seq mais cofeelam ci moom xëy na moo taxoon mu seq. waaw boobu moo koy seqal ki koy seqal kenn yow. Mm-hmm. n'est-ce pas na leen ne li doon def loolu baax te da ngeen ko nopp kon bu ngeen demee lu man a xewee fàttali ko leen bis boobu guddi yooyu rek ngeen dëj ci suuf te xam ni kenn du sànni deret te loo gis ci àdduna rek lu jot yow la. d'accord hmm. ñu bari di laaj ni vraiment jigéen yow la rek yow bu ko ne jigéen jigéen bu ko ne yow la jotul mu jël ay responsabilité ba mu ngeen koy bu ngeen koy wax Sénégal des na tuuti kii yow a yow a Sénégal dafa xew léegi bu ngeen duggee foofu baaxul jigéen bu ne yow la rek yow la déedéet ndax tey des fois ngeen déglu revue de presse bi ñuy wax nit am na jëkkër dem sëyeekee est-ce que kooku sëyeekee ba doom juddu ci est-ce que kooku day wax jëkkëram ni ko sa sama doom ji di ma ko jur déedéet la koy feeñal leneen la kon jigéen du bu ne yow rek yow parce que da nga am bët ak xel am na lu fi xew da nga naan kay mm-hmm. yii bu amee nañ dem xool li nga xam ne tey wóor na leen ni lii tey ku ko ci def mu wóor na leen bu dee sa deret dina ko génn def leen ko man daal yow yow boobu laa gën mu ñuy wax papam da muy papa Ousmane Seck yëkkati ay kàddu daal dina xam ne ni daal li doon jaadu mooy Bamba ni jël ay responsabilité ndax kàddu yooyu yoo rafetlu la mais aussi naa bien sûr parce que boo nee papa rek papa moom lu mu wax ci doom du ko jëñ ñëpp nee li gënoon yomb mooy xëy na mu dox ko ci suuf te kenn bu yëpp léegi muy dem waaw mais seen yi moo dem ci kaw ba pare man nekkatul def suuf parce que lu ko sa jug ci kaw nekkatul tey ci suuf mais bu fekkoon lépp ci suuf bi te pourtant mu ngi woon ci suuf mais xës na dem ci kaw ma pare foog mu wax ci kaw parce que loolu moo fi xew Sénégal léegi dem nañ ba léegi wax ci kaw moo leen gën a wax ci suuf jàppal ni kon wax ci kaw moo nar taal réew mi ndax bëri wax ci kaw ba ñu toogal leen yéen a waxoon ni ñu ni looy lu man ngay weddi rek mooy mooy daal. naka nga jàngate ñu dem ba toll ci oblesse foo xam ne vraiment nit dina def lu ñaaw sax ñëw si penc mi dootul am kersa xëy na. Euh, pour wax ko wala pour fësal ko ndax pour yow société bu normal loolu aussi du xel di nangu. coono yow sa bopp xam nga ni du xam nga ni lii day yàq sunu loolu gis nga jamono toll na foo xam ne coono ku yow téye bu baax a baax xam ni léegi danger bi nekk ci réew te yàlla xam na da ngay dem ba ci sa Sénégal ba mm-hmm. parce que Sénégal ba nga xamul mooy xamul ban dëkk kersa yar te ñeenti yooyu rek mooy téye daw léegi yëpp dañ parce que da ngay gis tey koo xam ne buy wax sax xoolal yoonam ci tikki bi ngay jaar kersa lañ daan muur sax pour yow yow léegi da ngay dégg wax sax da ngay tiit ne astaghfirullah te ki ngay wax jëliwul sax fi mu toog kon nag réew bu tollee foofu danger alors bu fekkee ne am na conseil wala jàngat boo xam ne jàpp nga ne vraiment moom la ñu war a taxawee ngir sauver xel bi nga xam ne ni xëy na waajuram bu góor waajuram bu jigéen jamono ji mën nañu wax ni d'accord ñu entre guillemets lan lay doon. waaw ah, mooy ñun mooy papaam bi mu jëli. ma ne Pambaay loolu laa ko jëlee su doon yow su doon moom wallaahi lu ma la xew damay dem jëli sama bopp loolu rek bëgg yomb na. ce qui veut dire que su ma doon moom la xam nga tey ku jigéen moom la wala Pambaay la fi mu ku ci wax rek da ngaa wax sa loolu mais dara wóolu ci mais li ci danger dëgg-dëgg fi may waxee mooy tey Pambaay li mu war a def mooy comme papaam taxaw na wax loolu ñii taxaw wax loolu. liy gàttal coow moo gën da koy guddal. xale bi mooy problème bi jël naa xale bi di jox ko teg naa ko na. xanaa bu ñu téye xale bi léegi problème bi dina jeex bu ko yoral xale la bëgg mais sëñ nit adopté na fi doom ju mu jurul bi kon bu ñu naan yow jëlal kay yaa ni Sénégal bu ne yow a yow a kon kay na topp sax boobu rek day jël ko maxu très bien Serigne Abdoulaye Diop Tass moom la rédaction Senbuzz di amal jotaay Serigne bi leneen actualité la mu jëm ci koo xam ne mën nañu wax ni xamoon ñoo ko muy Serigne Mara Niass. Euh, xam nga ni euh, ñetti fan yi ñu génn daanaka bokk na turam bokk na ci a ràññee ko ci réseaux sociaux yi. moom ak kenn koo xam ne daal jàpp na ni xëy na ñàkk jubóo am na seen diggante. naka nga jàngatee ci loolu koo xam ne si wàllu wàllu lañ la wàññi dara yàlla gi ñu tiim. Mm. xam nga na loo gi mm. ñu tiim ak nga ñu tiim bëri na tey lu nit ki di foofu ni nit gaa nga ci fekk romb na ko di laay gis gi laay ko ma la giññeet non wax la loolu ngay wax fi ne bëri na tey bi mag yoo xam ne bu ma jot xool man nag wax naa leen ko ay jour xam nga nit ku nekk ak li mu tal nit ku nekk ak li mu tal ak mu doon koy dépassé man lii maa ko dépassé te ba bay door ay fii ne fi ma doon li xalaatoo ko sax ci àdduna wallaay coogaan yéen ñi sax xalaat moom. mais lu Maranis ñëpp xamoon nañu ni quand amoon ngeen benn relation bu jooroo tax Serigne bi ñëpp maa euh, waaw xam nga xam nga xam suñu borom moo koy tudd. defe am na benn kii bu ma xale tegal dama cee reyee coogaan yàlla bi ñu di xam nga lu ay rey jàpp ma tey yow dèjà. xam nga journaliste nga. Mm. na loo xam ne ñun ñëpp ay professionnel lañu. te même bu ko yoon maye woon sax du ma ko def. coogaan loolu am na loo xam mm. sama del bi moo ko mënut mooy mooy. maanaam toroxal nit wa ilaa it wax loo xam ne nit ki dinañu dul baaram xam ne mënatu koo weddi déedéet du ma ko def mais yow sa bopp toog nañ ci saal ma wan ma wan la sama téléphone bi yi ci nekk xam sama mu ngi sama téléphone bi ah gis wan naa la ko di absolument ah mu ngi fii te xoolal liiral audio yi départ ba fin ba xam da nga gis fenn fu ma ne maa bëgg a xamante ak moom wallaahi amul ñaareel bi mooy ban njëriñ la ma amal pourtant dugal si vidéo yi nekk yëpp moom bi may defar xamante wuñu amaana boobu da ko doon def te yàlla tax nest mm. parce que nit ki boo koy def te xamante ko ne da koy def te yàlla tax amaana nag def koy def te yàlla tax. Mm. looloo waral sama benn rakk. yow tegal naa la sax seen audio yi moom sama rakk boobu. looloo waral sama rakk boobu ñëw ba ni ma kii nangam kii nangam kii nangam tegal naa la sax première vidéo bi mu ñëkk def audio bi lu mu ci wax. tàgguwu ma ne damaa ngi koy jéggalu waaye naa nga ma du yàgg dëgg parce que àdduna moo toll foofu amul lu ma ko balaa bi toll bi nañ la waxee yàlla xam na mais bëgg naa xam certainement aussi coowal police yi demee noonu dinaa ci moo créé vraiment euh, ñàkk déggoo seen diggante sëriñ lu euh, man de li ma wóor mooy defe naa tegal naa la bureau yi ñu hmm. dem fa sori n'est-ce hmm. ba ñu demee wax lu rafet ñu def fa it lu rafet àndaat ñëw n'est-ce hmm. kon amuñu problème tolluwaayam la. sëriñ bi amuñu problème te demoon ngeen ci Thioune dara ci yoon. parce que boobu damaa boobu damaa dem nit ki dina toll foo hmm. demee ngay ànd kii. Hmm. ngir jóge fa dem bu sori. ngeen àndaat ñëw. defe naa nga gis ni ñu mel. am guddi gi soxna si moom mosaan a dégg may reetal yoon boobu. Mm-hmm. li ci am dëggal naa ne li ko sabab. man gis nga bis bi muy bis bi muy def live ñu may dagg di ma xam nga loolu rek la sabab. Mm-hmm. man damaa jaaxle ndax foog naa ne ba tey du man lay waxal. bi ma ci dee live. Mm-hmm. billaahi man dama xaar ki man parce que man gisuma luñ jotee. te te te ay détails boo xam ni congar yow sax sa bopp xeeblu nga ko rawatina nag man. xalaatuma yooyu dépassé naa niveau boobu. di léegi mais lu waraloon mu def live boobu lan moo xam nga xam nga nit bu génnee attaque xam Sénégal gis nga ñaaw njort. Hmm. des fois mu ci loo xam defe naa nit def na vidéo mu foog ni man maa yónni nit ko defe naa li ma wax ne am na ay seede loolu mooy indi problème bi de mu foog ni maa indi nit kooku léegi moom ëllëg mu attaque kooku. Hmm. ma moom kay live la def moom maa ngi lay taale wu. attaque la loolu ci xalaat rek wax na ko ci. nga jàll ma bàyyi mu jàll mais dafa dem ba dafa ëpp congaan dëkk bi dafa am yoon. mais sëriñ bi baal ma sëriñ bi Diop ñu bari aussi ñu ngi lay presse ñu ngi lay ñu ngi lay duut baaraamu tuuma comme ni ñu ko waxee ni danga yor sa mafia daanaka ku la neexul ci réseau bi rek danga yor say booy say site yoo xam ne ñoom ngay presse pour ñu daal ci kaw. xoolal xoolal ñaar site man aw ma site xool ko xam nga xam nga li ma neex ci internet. preuve yaa ngi fi xoolal loolu xool ko ba xam ni nga ko ci gis damaa amul jot boobu. tey ki ngay waxal tey xam ne bu wàccee siñ bi ñu ko tegal ay kii mu ngay mu ngay reer loolu di naan ataaya bu guddee mu nekk ca la mu war a nekk ban ngay am nekk ci di ci dafa boobu xoolal nit ku koy xalaat man defe naa ku ma xam xam xaas xam ni xaas tàll na leneen li waa ji nag gumba tàll na leneen lu dul demi teen wallaahi mën a ci man xalaatuma sax yooyu détail Sénégal mën naa teg sama loxo ci kaamil nee naa ñi ku may ñaanal ne ma yàlla na la yàlla fay sa xol xam nga bëri na nit ko naan ko yàlla na yàlla fay soxla mu am amiin te billaahi ñaan goo ko ko dal ba mu tëju wala ñaan goo ko dal ba mu dugg ndax moom óor ko ni xolam baaxul dégg nga mm. mais man xol bi dafa yéene woon kenn lu dul jàmm ak salaam mm. moom ma yóbbu fii moom ma indi fii de mm. amul ci àdduna ku may yéene safaan déedéet gis nga tey wàcc liggéey wàcc gaari sama oto dugg sama kër ñu tegal ma ataaya ma nekk ci jàmm ak salaam su ma guddee ma nekk ci lu ma war a nekk bu ma xëyee génnaat na man loolu laa gëm ci loolu laa nekk. ci laa sax. dem nga woon ba gis ni dafa nekk adversaire de taille par exemple yoroon na bés beeg yooyu Serigne bi xaas xëy na nga xaw ci am firande. loolu day fekk xoolal. ba ba may ba may def congaan. Hmm. Euh, naan ñi may forme ba tey jii may wax yow. Hmm. d' accord naa tey nga jël sa micro bi fekk jour bi xaas di faj nga wër kër yi ba xam ne nga ko fa gis doo ko gis suba bu la neexee ñëwal sama kër am na yoo xam dépassé naa ko. topp leen ma jar te gàddu yet wanee li tax ñu topp la chef de famille ko waxoon ne ndax ñett at la xoolal samay début début émission la ma commencé di wax at mi ngi ko defee at bi ko ñëpp xamee at mi la ñëpp bàyyi bàyyil xel picc mi naaw du duñ ko yëdi ruus bi lay naaw ba du soli xam mm. nga loolu loo xamam ko def waaw moo tax kay ñu jàll. man man nga ñu ko leeralal. non olof la ci ci ci ay kàddu ba tey. boo xam ne ci lii. Ah. aywa dinañ jàll jongaan problème c'est vrai que dañu jàll sëriñ bi. jëm problème bi lii li problème bi mooy kilitu terrain moo xam ne daal sëriñ bi teeru jàmbur bi jël may ko ko. neen loolu daal métti na ko lool loolu mbir mu mujjee ci yoon. neen loolu daal vraiment. mbir mu ne moom mujjee ci yoon foofu. ci yoon waaw. mu ne moom moom ma yóbbu ci yoon. non coowal police bi ngeen amoon yéen ñaar fa yoon. jàpp mu ne loolu la ko yóbbu ci yoon. Ah, léegi dama lay ñaan leen ngir jëmmi alxuraan hmm. dimbali ma ngir yàlla comme nag seen bës la da ngay topp loolu da dem dig ngir yàlla ak yonent bi PV ba xam nga mu nga fa. mu nga dig nga laaj ba xam wax nañ ñu dem ci loolu dimbali ma ngir alxuraan. mais c'est plus facile nga wax naa loolu. déedéet aw ma jot boobu xam nga tey dig lépp lay enregistré. Hmm. lépp la ñuy bind n'est-ce pas. ndax numéro machine su ma ñëwul mu ngeeg moom mu ngeeg man n'est-ce pas te man maa ko jéggal moo tax ñu bàyyi parce que maa yor ñu te li ma wax ba ñu téye ko keneen ku ko wax sa jabar bi ngay sëyal ñu dem ba ni la sa doom bi nga am noonu joomu njaalo ndax fase woon nga ko defe naa xalaatal boobu wax bu ñaaw. loolu la la def sëriñ moom loolu la waxoon. non bien sûr. tey xool yàgg na ma xoolal man gis ne ma fa rey nit ñi. ñi fi leen sa alal yi nga am rey nit la nga am lépp lu ma la wax vidéo la te moom moo ko def. te moom bien sûr. am na ci loo xam ne yàlla xam na ko ak yonent bi xalaatuñu ko ci àdduna te ba tey jii may waxee yow gis nga ko def du ma tooñ ku yàlla fii ci kaw suuf gis nga xam nga lu tax. Hmm. rus naa taxaw ak samay nawle ñu jël loolu ñuy def naan ma dañ ma koy defal fii wala kaa yaa wax lii wala yaa ma koy weddi chaque demal dig bëri na lu waay waxoon ba nga demee dig da koo weddi te tey ba nii may wax ak yow nii nii ku ma ci war a wax xam nga lu may tey defaatal dem porté waat ñu toogaat parce que jamono moo dépassé loolu coogaat doo da ngay toog sa kër wax loolu man dama barke Muhammad bu doon mën na ne du ma ko def ndax du ma ko seetaan billaahi lazi laa ilaaha illaa bu fekkee li ma lay war naa ci baat yàlla bu mu wàcc sama iskini du ko seetaan kon nag njort jomm naa billaahi wal kitaab toog naan damay bàyyi xel wala yow kuy bàyyi xel man damay bàyyi bàyyi xel kaatim bi ma gënoon na xam naa ni kaatim tey amal na ma jëriñ tuuti sax am na ci loo xam ne xel nangu ko wallaay lii tax te te baat boobu sama doom boobu day màgg xool sama premier élève wax naa ko sama doom day màgg léegi bu màggee gis loolu ci internet lan la koy gisee moom kon bu coowal problème suuf yooyu. suba la lan samedi. Hmm. ngir yu ànd ak yonent bi bu lëndee dinañ dem di comme loolu la di nga dina leera te bu ñu demee dimbali ma nag congaan man maa lay woo. Hmm. foo nekk dinaa la jël. parce que seede xam nga dañuy congaan dafa dugg. ah Sénégal yëpp la ko teel. fii nag laa la ko waxee ci micro bi laa la ko waxee micro seen buzz. congaan leen man maay taal sama oto foo nekk maa lay jël. ñu dem ba dig ba ci liy naa bu yoroon dossier bi. ñu ne ko affaire dossier bee ñu taxoon a jóg moom dina la répéter dossier bi lépp de A à Z ba xam ne ci gis loolu la. ni seen domaine bi dafa bari léegi affaire bu courant ah, gisoon nañu fii yàllaay kese Moustapha Dramé yekk na lu nekk après mu ñëwaat ngeen nekk ay xarit au fur et à mesure seen bi dafa mel ni daal vraiment. dara seen seen seen système bi. Euh, xaw na lu luusu il faut nga comprendre coono la première fois ba xaas di xaas toog di wax ci ay actualité. bor hmm. liggéey la concentré parce que am na xam. Dramé man xam nga nit ku nekk da nga koy seetee li ci nekkam xam miinante nañu miinante wuñu mm. te mun naa ni tey awul lu ma ko mën a projet bi xam nga lu tax ndax nit ko xam tey day def la ne ku ne mais ci xolam mas naa ko koo wax téléphone un jour mm. ni ko tey bu ñu doon xool ci xol man gisuma ko gën ci xol ci côté boobu ndax tey boo ko woo téléphone xam ne li muy wax ci e-, e-, caméra yi nekkul li nga xam ne moom lay dund parce que yéenewul man moom loolu lu ma wóor la ndax am na lu ma jot xam ci moom ci côté boobu mais dafa am loo ni say dafa dem ba ñoom ñu ngi jël ndox mu tàng di ko sotti ci seen kaw te yëguñu ko xam nga loolu daal da ngay gis koo xam ne wóor na la heure yàlla amagu ci dara yàqal boppam ba mënatu tey dem fenn parce que dafa am loo xam ne congaan nit ñi buñ la yaakaaree ci faj wala ñu yaakaaree la ci beneen domaine wala ci xam-xam toogal ci sa xam-xam congaan nga wa gis nga tey mais boo demee jàpp ni xas kii mooy tax te bëri na ci ñoo xam ne jàpp nañ bu ñu xasul nit duñ leen seetaan te ma mm-hmm. ko tey damaa bëgg mu def ko nga nga nga ko nga xool ba xam ne ko ci doo ko gis pour nit ñi ñoo dépassé loolu a seen na daal seen i naataango kenn ku nekk euh, tey Mara Niass tey ngeen toog ay règlement de compte yooyu ndax loolu rafet la ci loxo yi. xam nga xam nga xam nga dafa am loo xam ni. Hmm. xoolal wax yi fa mu jógee ak ki ko li nga xam ne loolu rek moo ko yitte. Hmm. defe naa xaas depuis boobu xoolal ba xam mas ngaa dégg ma wax lu ci dëgg dama koo fàtte. dépassé léegi dama ko dépassé de. sëriñ bi li nga def simple grave ko métti léegi léegi ba ñu yóbbu nit ba ñu dajante rayante moo gën loolu nga gis yow tey am na ci loo xam ne nit la te xol-xol la n'est-ce pas xoolal tey liñ ma waxal yépp ku la ko waxaloon yow congaan na xool ko rek tey nga dugg sa kër fekk sa njaboot kenn toog di jooy looy jooy ndax li ñu wax diw wala nga kenn toog sévère lan la diw laa doon seetaan vidéo mais congaan kon nan ko ci sa bopp am na ci loo xam ni wallaahi ku mu daloon rek di yow n'est-ce pas. Mm. alors nan lay def bu ñu demee ba nga xam ne doxalin bi. ñu bari ñu koy ñu bari ñu koy ñu bari ñu koy ah kii waaw wala ñu dugg ci kii bi nañ bàyyi débat boobu. d' accord foofu laay jeexalee pour dernière question bi mooy. vraiment bëgg naa aussi mu nekk message boo xam ni xëy na ndaw ñeeg ñu nekk ci may daal ñu koy jàngatee. tey bu ñu demee ba nga xamee ni xëy na ay audio mu ngi fuité diw naan diw lekk na sama xaalis sëriñ yi entre guillemets ñoom ñëpp a yem ndax loolu vraiment luy luy gën a rafetal seen. conseil sëriñ si yëpp hmm. ndax tey defe naa faj bu doon concours. ah bàyyil awra faj bu doon concours faj bu doon concours toogaat ñu ne laa taxaw yëkkati sama loxo xam nga lu faj réew jàmbur bu ñu yëkkati diplôme jox Sénégal fii mën naa laa waatal ci alquran tey lu fu nit di def ci faj xaas ko mën kon naa ne bu ko tey jàppal ni ci àdduna amul teraanga bu ma faj mayut ci gis nga man lépp loo gis ma yow dara faj ko tur bii nga dégg tey di ko dégg ba déwén xaas xaas xaas xam nga lu may lii hmm. faj bu doon tey damaa débuté wax bu ñaaw jàppal ni heure bi suul nañ bu yàgg parce que am na ci loo xam ne nit ki koy dégg sax bu yàggee moo su dee chaque jour bu ma la jàppee di la xas di la xas di bu yàggee nag ñaan loo coogaan dina toog mu ne man li ma jaaxal coogaan moom day parce que xam-xam la mais bu ñu nee sëriñ wala diw nangam dàkkantal nangam ñi ci tax ñu dàkkantal ko bu ko wàccee rek na yoonam loolu daal laa ci gis nañu rafetal mbir mi nañ ko rafetal de ku ci jàpp ni xastante mm. saagante xulante moo lay may dara yaa ngi nax sa bopp ndax nañu respecté suñu waajur yi nañu respecté aussi nag wallaahi ñi ñu yàlla boole. Mm. man loolu laa am ci lu ma si. Serigne Abdoulaye Diop Khass ñu bari ci askan wi jamono yële jàppoon ni wax ci réew mi nga jug si dox ay. alors lu tax tey lu lu tax njur médiation bi nga doon def tey cas mel ni cas bu Bambaly par exemple nga toog ci kenn déggu ci. bu ma ne. ah xam nga est-ce que xam nga léegi dangay ngay jël micro nga nekk sama koñ fii ba xam mën naa seetaan ñaar man man naturel loolu dafa nekk ci man xam nga jongaan lu ma gëm wallaay ñëpp nekk ci jàmm ñëpp ñëpp nekk ci jàmm est-ce xam nga nit bu toogee jooy sax guddi googu yërëm naa ko yaa ngi nekk parce que noonu la ma yàlla bindee xalaatuma ci àdduna ba Malick Seck démb fii laa ko lancé message boobu te man sama bopp. lu ma koy ñaan lay doon te dinaa yëkkati sama téléphone woowal ko mu dem jël xale bi. bu dul dara sax c'est pas trop tard ba léegi dafa bokk sëriñ bi. di ko war a. coow li ci bind bi ku nekk di ci wax. dangay ngay bàyyi ñaata coow fi jaar na damaa nekk di def naa di def naa di def naa loo doo ko yëg. ba nga xëy rek gis li nga ciy gis. gis nga su ma sañoon kenn du xuloo. su ma sañoon ñëpp bay nekk ci jàmm. mooy wax bu gàtt. très bien ndax am na lu ñu mën a xaar jamono ji ginnaaw bi nga xam ne ñu bari tamit jàpp nañu ni médiateur nga sa diggante Mara Niass nekkul xëy nga nga ñu bëri hmm. man de fekk ma téye dara sama ko. coono. kaa mi bu la jógal ma teg ci sama loxo nii amul ci Sénégal ku ma téye dara ci sama xol amul. yàlla mi ñu tiim xam na mm-hmm. waa parce sama ceeb a ngi niin d'accord mm-hmm. sama ceeb a ngi niin mm-hmm. maa ngi am li ma bëgg lépp lu ma bëgg a faj maa ngi koy génne di ko faj yàlla teral na ma mais sëñ bi nag man du dinaa waye di nag ba naan damay téye dara ci sama xol di yokk sama xol bi dara du ma ko def xalaatuma ko ci àdduna li may ñaanal réew mi yëpp mooy jàmm li ko ñaanal fajkat yi yàlla may leen teraanga ba def ci seen i poste dara parce que dama dégg Youssou Ndour boo wax bu am solo. Mm. nit ki bu bëggul ci boppam. Mm. nee fu mu toog lay xas. Mm. solo. Youssou Ndour mu ne boo xas de nee na dafa ci boppam. congaan di nga bëgg ci sa bopp. man dinaa bëgg ci sama bopp toog naan congaan congaan congaan congaan. congaan bu amee xel war naa xam ne tey man mi may tudd am na lu parce que tey man bu ma tey congaan mii. tey kat bëgg naa bëgg naa dara ci congaan parce que foofu ma doon mën a congaan waaye boo wóoree ni congaan tey nangam man kay. foog pour ma wan congaan ni ko man li jënd ko damay fàtte congaan buñ ma ci laajee sax du ma ci wax. jamais parce que da ngay dépassé loolu. kon waxuma ne kenn ak kenn maa ngi ñaanal réew mi yëpp jàmm. di ko ñaanal ñaanal seen bës. di ko ñaanal aawul moom mooy médiateur bu mag bi tax wala li def ci suuf boo ëpp li def lu mu defar bari na lu ma naroon ma ñaanal te dem police boobu de. Mm. aawul directeur seen bës bii. Mm. laaj ko te départ ba. vidéo bu ñu def dama ko ko yónnee. ba xam nga ne muñ naa. absolument muñ naa de. barke Seydouna Muhammad mm. bokk na ci li ma ñaan li ma cheikh bi bàyyi bii mu jàll laaj koo ko xam def naa ko dama bàyyi mu jàll. beneen bu tàng nag dalaat sama kaw mënatuma koo muñ lii la rek ñu ngi ñaanal réew mi yëpp jàmm di la ñaanal jàmm coono vraiment. jërëjëf dafa yow émission lu neex la ndax.